asalaamualeykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak euh, diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk bala ñuy tàmbali suñu waxtaan ñuy euh, delloo njukkal suñu ñaari doom suñu jarbaat suñuy wëllëre suñuy xarit yoo xam ni seen taxawaay ci suñu jëmm ju doyadi ji wone nañ ko ay yoon ci seeni kàddu te nag nit bu fekkee ne dafay am yittey seedeel la lu baax dana jaadu ci nga won ko ne ko loolee day lu ma gis la lu ma yëg la kenn ki mi ngi tudd Haj Abdallah kenn ki mi ngi tudd Papa Ndiaye Papa Ndiaye defe naa ne du benn du ñaar du ñett sama waa kër sax dañu mujj miin ko Haj Abdullah kazalika ñooñu nag laay tudd ndax dafa mel na ñoom ñoo gën a fésal seeni jëf am na ñoo xam ne ñii nag mën naa wax ne ay junni junni lañu ñee nga ci seen ruq di ñu ñaanal ñee ngi ñuy woo ñee ngi ñuy yónnee message whatsapp wala sms ñee ñi ngi toog ci yeneeni bërëb di partager vidéo yi kon dey tudd gi ma tudd ñaar ñi jàpp leen ne yéen ñépp noonu laa leen tudde ci sama xol di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal di sàkku seen ñaan ni ngeen ñu doon ñaanale ngeen dolliwaat seeni ñaan ñuy ñaan suñu borom tabaraka wa taala nu dund ba li nga xam ni moo tax ñuy taxaw ci réew mi mu gën a taxaw incha allah su ko defee sunu waxtaanu tey mi ngi jëm ci li xew ci nguurug Macky Sall boole ci sax nguurug lay Wade ak Abdou Diouf ak sengoor waaye yii de ñoom ñoo yi fees Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf moom euh, Abdoulaye Wade ak Macky Sall moom ñaawteef yi jéggi na dayoo li may wax nag organ d'audit yi nga xam ni ñoom mooy seen liggéey di saytu ak di luññutu ay jalgati ci alalu askan wi ñoom ñoo ko wax su la yàlla baaxee woon ba nga mën a liir di liir loolu liiñ boo ci liir sa xol day jeex jeex goo xam ne gii dootoo yaakaar ne mën naa seddati ndax ñaaw téef yi nga xam ne yi ñooñu def nañ ko yaakaar naa ne genn wàllu senegal dong bu ñu xamoon loolu buñ ko xamoon waxtu wi fekk nañu wàcc ci mbedd mi dem ci kër ñooñee poñe leen indi leen ci yoon par force yor yoon atte leen luñ leen war a daan ñu daan leen ko parce que ñaawteef yi jéggi na dayo rawatina nag ci jamono yi nga xam ne jàpp nañu doomu aadama yi tëj leen ci seen biir kër yi ney as mbas moo dugg ci biir réew mi di ko lëmbe ndeke yoo bu loola amee bu amul wala la ci am ak nu mu toll caay caay la woon goo xam ni gii jéggi na dayo ci histoire yu Sénégal kenn mësula dégg lu ni ñaawee danga naan ñii koy def ñi defoon lii ay nit lañu est-ce que jëmmi doomu aadama ji nekkul statut boo xam ne bii amul ruux nga koy séen nii rek wala ñii est-ce que ñoom am nañu xol wala xel muy xalaat wala xol buy yëg nit ñoo xam ne ñii boo leen doon méngale ak gaynde miy fàdd di jaay doole gaynde gën leen soo leen doon yées méngaleeg bukkeeg tan miy dunne médd ñooñoo leen gën soo leen doon méngaleeg golo mi nga xam ne bu duggee ci tool du yam ci lekk da cay boole di gësëm di yàq di di di xàmp di sànni soo leen doon méngaleeg mbaam xuux mi nga xam ne mii xelam du teey lu mu gis lekk ko bu juróon doom fii su doom ja néewul waxar ñett daw day wëlbatiku lekk ko soog a juraat beneen soo leen doon méngaleeg kaña mi nga xam ni dangay tabax sab tabax ba mu jekk moom kaña jaar ca suuf gas ko gas ko yëgoo de dangay xëy benn bés rek sa tabax màbb soo leen doon méngaleeg weñ wi nga xam ni amul lu tey xelum weñ lu tooy rek dana ca tag lu xeeñ mu dem tag ca ay sàcc yoo xam ni seenu càcc amul càcc gu ko yées ciw askan ndaxam kaso yaa ngi nii fees dell ñoo xam ne ñii benn nit lañu amal problème ci bor wala ci jalgati mën nañ njuumte mën nañ ko lebal te fayul mën nañ ko dénkit sax xëy na mbiri jaboot dal ko ci kaw di xew ci réew mi ma nga ca kaso ba tëdd soo ko doon wàññil bay bari bari bari du àgg cinq cent mille téeméeri junni ñi ay milliards lañ leen waxal milliards waxuma million junni milliards ñi ngi ci dëkk bi di tambambaalu am ay bàjjan ki nijaay nag am ay bàjjan ak nijaay ñuy paccoo ak a séddante ndeyu mbilli ji Macky Sall ñépp dégg nañ ko ñépp dégg nañ ko vidéo yaa ngi nii ci internet ñuy jalgatee tooñ mu jël coñcoom nee na teg ko ci dossier yooyu pour dara kenn bañ cee ŋaaŋ diirub li mu fi nekk moom Macky Sall kenn déggul ñooñu ñu jiiñ ay milliards ku leen woo laaj leen wala waaj buñ leen laajee ca laaj ba lay yam lépp doxe fa tàbbi àjjana àll bonni def naa noonu la ko tukulóor di wax àll bonni gëmuma ne ñii daal seeni mbir def fi doxe tàbbi àjjana te lii ma ci xam wax ko du asaka ci li fi li ci ñii fi nekk tey xam du asaka ñoo ma ko gën a xam foofu kon ñu ngi leen di xaar ñu ngi leen di xaar ci loolu ñu ngi rafet njortit ne xam gi ngeen ko xam ak dogal gi suñu borom dogal tey nguur nekk ci seen loxo du ngeen seetaan askan wi seeni alal di maali foro ndax nag ñaawteef yooyu dey ñoo jur suñu nekkin wu metti wii tey ñaawteef yooyu moo tax ba fii ñu toll nii njëg tollootul lag li nekk ci poosu nit la nga mënoon a jënd fukki at ak ñaar ci ginnaaw jënde ko téeméeri dërëm mënoo koo jënde tey ji ñetti téeméer walla ñeenti téeméer njëg yépp yokk na parce que état nguur mooy seet njëg yi mu dugal ci aslëfam teggi ci ay tax loola woyof ba baadoolo bi mën caa gis boppam bu wëree jar ñaar fukki dërëm nguur fexe ba mu jar juróom-ñetti dërëm yemuñ ci mu war a jar ñaar fukki dërëm ñu yóbbu ko ñaar fukki dërëm ak juróom loolu moo nekk ci réew mi ñépp a ngi ciy teg seen bët te càcc gee walla càcc yële moo indi loolu réewum Sénégal gii tey jii dangay ngay jóge ci dëkkub taax bu toll na Louga soo dawee fukki kilomètre ak juróom laa wax fukki kilomètre ak juróom dootoo gis courant dootoo gis ndox xanaa teen ne fa li may wax ku ko mën a weddi ñun jóge nañu Medinatul Munawwara ala saakinihi afdalu salaati wassalaam bay àgg màkkatal mukarrama da dangay seen ay dëkki kaw yoo xam ne yii ci diggu àll la ñuy nekk ndox ma de moom wóoruma ndax gisuma ay ay forage ak yëf gisuma château d'eau waaye courant dem na fa lu yóbbu courant bërëb yaakaar naa ne moo gën a jafe lu yóbbu ndox bërëb lu dëkk sori sori yaa ngay seen poto ya parce que askan woowa dafa ñor nguur ga fa ne nekkin wi ñu nekke ci wàllu wér-gu-yaram fan yi xam naa ne ñi may seetaan ak ñi may déglu def leen di jaaxal li ma mënoon a wax ci samay mbokk yu wàññeeku dëgg la ku matal dem rawatina ay mag waaye hôpital yi ña fa nekk am na ci ay dëgg-dëgg professionel ñu mën seen métier xam seen métier am yéene waaye ñoom tàmbalee ci Abdou Diouf léegi jël hôpitaux yi di ko lobb ay nit ñoo xam ne ñii politique lañ leen fay dugalee kenn ñemewuloo la weddi li may wax ngay bale ba yàgg ngay pikiir ngay bale ba yàgg di pikiir ngay bale ba yàgg di faji góom bu ñee ñaaxal nga kii kër ci kër yi solub tenue wala blouse lii moo xew ci réew mi matériel bu baax amu fa IRM tey jii rek laa koy wax ak sama benn mbokk nga xam ni benn rajo la boo jarul dara ci lu réew mën a wax ci lu réew mën a wax Louga gii ñu fi jóge di dem ci Touba di fa defee ji IRM Louga région la Touba nekkagul région fu nekk ci réew mi nag war na ko mën a am dëkku kaw ba gën a sori waxatuma laak nag dëkk bu toll na Touba mën naa nekk waaye lu tax Touba di ko am te Louga du ko am pour lan pour lan du dara ci amuk tuubaa gi bu ma kenn booleeg àddina ànd naa ci cent pour cent parce que ay citoyen fa ne waaye dafa jekkoon ci Louga am ko machine boo xam ne jarul dara ñu dem tuubaa di ko fa defi di dem defi jalis ba Jurbel ku feebar soo ñëwee hôpital dee nga gën a xalaat njàng mi nag moom waxaalewu ma ko moom njàng amatul senegal njàng amatul Sénégal kenn mënu ko tuddee njàng ki gën a am problème ci sa ci Sénégal mooy ñi ñu jox wàllu njàng mi ministre de l'éducation wala l'enseignement supérieur wala ñooñu tey jii kenn ëpp leen problème ndax défi yi ñu war a relever dafa bari waxuma la ak nag mbedd yi biir Louga gii rek responsabilité état ngi ci maire ngi ci ndax décentralisation am na waaye loolu tey jii citoyen bi fan la koy jooyee moom oto boo yor mu yàqu cardan amortisseur dooto bokk ci moom doo ko am oto boo yor ñaari weer mu commencé kii kii ji ndax pax yi ONAS pax yi nga xam ni moom la def ci kaw tëli bi kenn xamul am na ci yoo xam ne pono lañ ciy teg pono nga koy séen boo dof dofloo bay doublé te bàyyi woo ko xel soo xasee ba dikk troisième position li wér te wóor mooy moom pax ma boo ca nee tell dangay dangay da dem ci mécanicien alal jooju may wax ba tey ci la waroon a defar ay usine ndaw ñi mën a am ay xëy hôpitalu Louga bii ku fa dem bëccëg bu ne bëccëg bu ne lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti li gën a tuuti mooy ñett dana danañu dee ci Jakarta wala damm wala laggi faw hôpitalu Louga li may wax nag du ma wax di di peese di di di doyee dal samay wax lu wér cëng laa leen wax ku ko weddi demal ci directeur bi wala ci agent yi nga laaj leen ko Jakarta yaa ngi def ay ravage parce que xale yi amuñ ci luñ jàpp xam nga ne 2000 francs kuñ koy laaj ci ci ci ci ci ci ci moto ka jël motoom jënde ko 400000 di laaj 2000 francs par jour 60000 francs par mois la soixante mille francs par mois la il te faut près d'un an dana jege un an nga soog a amortir njëgu nga soog a am njëgu li nga jëndee woon moto bi daanaka huit mois dana ko daw soog laa rembourser xaalis bi dese ak ñànkar ñànkar moto bu daw huit mois baaxatul ñu waroon a créer ay usines yoo xam ni xale yooyu du ñu soxla di dem di dawali moto jaxar Jakarta di ci xaar lu ñu mën a yore seen kër su ma fi toogoon di ko wax ma fi jóge te ay nduxum rek maa ngi delloowaat njukkal président Burkina Faso mënumaa daaneel samay kàddu te waxuma ko vidéo bi ma seetaan mu koy wax li xew ci réew mooma mu koy waaj a dindi looloo fi nekk diirub ab Diouf ak léegi gardiennage yi fu ma fekk ay gardien sama xol day fudd saa yu ma duggee ci benn bërëb bu fekk gardien ci bunt ba lii sama yéene mooy lu mu gàtt-gàtt may ko téeméer wala ñaar téeméer yu ma mën a yóbbuwaale jënde ko kafe ci yoon wi fukki junni fukki junni mooy li gën a bari luñ leen di fay fukki junni mooy li gën a bari luñ leen di fay te benn waay mooy gagné marché bi woo leen sous-employé leen lañ koy fay ca agent ba day dem deux cent mille wala cent cinquante mille mu way mu woo ko fay ko fay ko fukki junni moom la président Burkina Faso tuddi tudde esclavage te mooy nekk ci réew mi ci anam yu bare bokkul nag nag ay post yoo xam ne fictif ay nit ñoo xam ne ñaar jël nañ leen bind seen tur liggéeyuñu bu weer dee ñu fay ko muy benn ak ñoo xam ni faf dunduñu sax maanaam amuñu ay tur la ñu defar rek mën naam sax ñu dem defari ay extrait de naissance parce que réew mi lëmbaajoo lii mbokk yi moo fi nekk kon ñii fi nekk day dëgg yàlla ñu jara yërëm la ñu jara ñaanal lañu ñu jara taxawu lañu ñu jara jàppale lañu ndax nag fekkuñu fi lu yomb de fekkuñu fi lu yomb fekkuñu fi lu yomb bu ko defee ñu yemale kàddu yi fii ba beneen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.